borom yàggal ko suñu kanam bu ànd ak wér dañu yàgg topp ci gannaawam mu yàgg nu jiite sama borom def ci jàmm ak salaam ak xéwal yéene sëñ Abdou Khadir lépp yal na ko yàlla yeggale ci dara yi sëñ Tuubaa ci yoon wi yal ko yàlla may wér fanu gudd wàllu sa faw ci dara yi sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo fi day ne yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu